da nga bëgg a tukki dem bitim réew wala nga bëgg dugg ci projet ngir sa wàllu liggéey wala sax nga am koy bëgganteel ngir projet de mariage lii yépp nag nga bëgg a xam ndax boo ci duggee dana baax wala déet gaawal jokkoog Serigne Moustapha Sall yàlla may ko xam-xam lool ci wàllu seet ak li saxaar ndax dalay gis bu baax gis say mbir bu baax loolu tax na ñépp ràññetle ko ci réew mi ak bitim réew yow mi nga xam ne da nga jaaxle lool ci sa wàllu yaram dawal jokkoog Serigne Moustapha Sall la ci seet gu leer ba noppi wax la say sarax nga génne ko sa wàllu yaram yaram loolu nag ci ñetti téeméer rek la koy defee maanaam 1500 bu fekkee itam da faral di gént ay gént yu la jaaxal a génne ci soxnaam taxaw mënul loolu nag ci 1500 rek rek la koy seetee bu dee nag da bëgg xam sa tabian wala sa bidiw loolu nag ci 1500 rek la koy seetee bu dee na nag da nga bëgg ku la seetal sa mbir yépp nag loolu ci 3000 francs rek la koy defee ngir jokkoo ak moom wooteel ci numéro téléphone bii 77 146 ak Serigne Moustapha Sall dara dootu leen ump ci seen i mbir ndax nag mooy li yokk seen i kaaraange tey dalal seen i xel abonnez-vous sur Scène pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam. ca yàlla mu nekkoon lu doy waar lool ginnaaw bi jëkkëru bàjjan Fatima bi ñàkkee bakkanam bi ñu ko yóbbee hôpital médecin bi daal di koy xool bi mu ko vérifié xool ko daal di xamal ki nga xam ne mooy Fatima Badiane Fatima ak doomam jooju di Ibrahima ne leen yéen de ki ngeen fi àndi bi ngeen ñëw fekk na mu ñàkk bakkanam noonu nag Badiane Fatima daal di ne ko lay wax nii médecin bi daal di confirmer loolu ndeysaan rek Badiane Fatima yenn ay loxoom di jooy jooyu tara tara tar tar ak doomam Ibrahima. jamono boobu médecin bi moo ngi leen doon jéem a dëfal di waxtaan ak ñoom di leen delloosi ci yàlla booba jëkkër jaa ngi tëdd ñu muur li nga xam ne mooy kanam gi ak darab bi ñu ko muuree ba leen fàtte di jooy jooyu tar di yuuxu ci hôpital bi wante médecin baa ngi koy delloo delloosi di ko delloo ci yàlla mu xam ne sunu borom tabaaraka wa moo ñu bind moo ñu fi andi te ku mu soxla itam dalay jël ak anam boo mën a demee ak fu nga ko mën a jaarale loolu nag nekkoon lu métti woon lu dawoon yaram ki nga xam ne mooy médecin bu ma gisee ne ñoom seen jooy yi dafa tar lool dafa daal di waxtaan ak ki nga xam ne mooy Ibrahima ne ko yow yaay góor góor gi nga xam ne mooy sa jur comme ni ko maire bi waxee bu fekkee yow rek la am ci doom kon yow waroo taxaw taxawaay bii waroo nekk di jooy. ingénieur bi yaa ko war a taxawu delloosi ko dëfal ko action yi ngay doxee maanaam action yi yi ngay comportoo maire bi mën na cee sukkandiku ba affaire yi woyof ci moom mais am na nooy doxee rek day métti kon li ma bëgg mooy bàyyil jooy yi te nga jéem a delloo sa xel ci yàlla ndeysaan noonu la mbir yi demee woon Ibrahima dal di bësante ak xolam ginnaaw bu ñu. bindalee pap papam papier di dese ñu yóbbu ko fi nga xam ne mooy ci margo bi noonu nag la xabaar bi daal di siiwee wante Baye Djily bi mu déggee dese bi dafa tiit daal di tudd yàlla affaire yi nag jëlee ko kaw lool bi nga xamee ne mbir moomu am na jooy bari woon na ci kër ga lool muy laal la muy ndumbe ku ci nekk yaa ngi génne rongañ ba ci may ndeysaan ndax jëkkëru bàjjan Faati bi nga xam ne moom moo génn àdduna fa saasa Habib li mu doon def bàyyi na ko jógee ci hôpital ba ñëw ci kër gi ànd ak baay jibi ak ki nga xam ne moom mooy paap ak lenn ci seen doom yu góor yi ngir ñu dem seete ji ki nga xam ne mooy néew ba ca margo bi ngir ñu mën a waajal taxaw taxawaay boobu mbokk yi doon ñëw fu nañu doon fa jóge ci dëkk bi wante bàjj bi bi nga xamee ne jógee na ca margo ba moom dafa daal di gaaw jubali ca sëriñ ba waaye bi mu demee fi nga xam ne fële sëriñ bi dëkkoon dafa gis ne dafa jóge ndax village boobu sëriñ boobu dafa daan ñëw lu bari dafa nekk waaye nekkul dëkkam cosaanam dëgg-dëgg dëkk cosaanam fu sore sori la mais village boobu dafa dendee ak ñoom village bi ñu dëkkee loolu moo indi seen xamante ndax baayam la xamante loon waaye bi mu ñëwee dafa fekk sëriñ bi lu ëpp ci ay bagaasam daf koo jël daal di dem seen dëkk ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci kër googu te luyee ko dañoo xamal baay jibi ne ko sëriñ bi de moom dafa génn démb daal la génn daal di dem seen dëkk bàyyi ji bi daal di jël téléphone am daal di koy woo ba sonn mënu koo jot bàyyi ji bi nag jaaxle lool ana lan moo tax mu jaaxle. sëriñ boobu moo ko doon jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom la doon def ngir mu jëm ci Fatima mi nga xam ne rakkam la liggéey boobu nag ngir yàqal Fatima indil ko ay jafe-jafe ba mu dellu ginnaaw ci décision boobu mu jël maanaam muy Fatima mu ndaw moom mu bañ a may ki nga xam ne mooy doomu baay ji bi ba noppi bëgg a jël Ibrahima doomam may ko Fatima loolu taxoon na mu indi nooneel ak mbañeel ci baay ji ba mu bëggoon a liggéey ki nga xam ne mooy Fatima wante jaaxal na ko ndax gis na ni Fatima moom dara dalu ko waaye boroom këram dafa ñàkk bakkanam mu tiit ci loolu nag ndax moom bëggul woon sax Fatima ñàkk bakkanam du ko bëggoon a liggéey rek xëy na lim sant sëñ bi bi mu koy def dafa meroon waaye mel na ni li am ak li lim bëggoon ak li am bokkul taxoon mu jaaxle lool xamul fan lay teg tànkam xamul itam nan la war a def mu tiit lool nag di insister fu mu toll moo ngi woo sëñ bi. diiraan wu dëju paa bi bi ñu koy denceeg bi ñu koy waajal yépp bàyyi ji bi jiitaloon ngir mu taxaw ko waaye bàyyi ji bi nekkuloon à l'aise ngir mu tiim néew bi rek daf koy def problème dafa obligé ñi nga xam ne ñoom ñooy naay bi yi nekkoon ak moom ci jàkka ji ñooñu ñoo ñëw di ko jàppale ci yu baree bari bari nga xam ne ñu bari dañuy jàpp ne bàyyi ji bi dese paa bi moo ko marqué wante imaam la warul mën a doxee noonu dafa war a maîtriser lépp. mais imaam bi nekkul lu dëggu ci moom ndax su fekkente ne yàlla kese moo ko ñor doxin woo mu doon doxee nekk na loo xam ne lu gënul la ndax tegu ko ci fenn fudul ci bakkanam ak meram ndax mer di jëf yenn jëf yi ci sa bakkan dong nga koy teg waaye du fenn foo xam ne gis nga ne lii nga def nii jaadu na wala jaar na yoon loolu nag defoon ko stress ak jeexit gu taratar bàjjan Faati mi nga xam ne moo ñàkk boroom këram sax bàyyi jibee ko gën a stress ndax xam na li mu def lan la ndax njort na ne li paa bi doon def faati rakkam moo këpp ci jëkkëram ba jëkkëram faatu te xam na nag bakkan dafa foor loolu nag tiisoon na ci moom te tiitaloon na ko lool ba tax na bu tëddee sax du mën a nelaw nelaw yu baax waaye bàjjan Faati dëj bi dese woon naa metti ci moom a 100 pour cent ndax mbokk yi ak njaboot gi mbokk ki nga xam ne ñooy boroom këram bi ñu ñëwee taxaw nañ taxawaay bu rafet ci seen mbokk boobu waaye soutenir jàppale ki nga xam ne mooy bàjjan Faty ci ay seer yu rafet ak dëlal ko ak dalal ko dëfal ko daral xelam ni ki noonu ay mbokk bàjjan Faty tàmbalee ko ci jibi moomu nga xam ne ñoom ñaar jubawuñu woon déggawuñu woon jamono boobu waaye bàjjan Faty moom dafa xam ne comme ndogalu yàlla ñëw na soxlawul muy xuloo ak frère am wala muy meroog moom mu bàyyi lépp mu sedd waaye nag moom bàjjam faati xamut lan moo xew cause bi nga xam ne mooy rey jëkkëram moom kenn xamu ko dañu jàpp ne rek lu yàlla dogal la ndax mbiru baatin la dëgg la yàlla moo ko dogal ku dee rek waxtoom moo jot waaye nit ki su def lu ñaaw day fekk lu yàlla dogal mu ñëw dugal ci loxoom takkal ci loxoom ñaaw ci même su ko bàyyi ji bi reyul woon paa bi heure dee am jotoon na waaye jëf yi bàyyi jibi yu ñaaw moo waral bàyyi jibi loxoom taq si ndeysaan noonu nag la bàjjan faat yi wéyalee dundam ginnaaw bu borom këram gaañoo mu dese ak doomam Ibrahima ak turandorom boobu nga xam ne mooy faati wiitaay gana si na ko waaye ki nga xam ne moom mooy faati bu ndaw mooy Fatima léegi nag kenn naatablewul ne dafa war a des ca kër ga ndax kër ga léegi dafa wét ba tax na dafay dem kër baayam samedi ak dimanche seet leen léeg-léeg bàjjan na ko demal nga seet sa ñoom yaay samedi ak dimanche boobu nag bàjjan fàtte daf koy bàyyiloo xelam nu mu war a dundee ci kër ga léegi sax ki nga xam ne mooy moor moom moom moor mu ndaw moomu dafa écarté wu ci Fatima ndax ñemewu koo jege ndax xam na lan moo xew diggante ak Fatima te secret boobu bëggul mu feeñ benn yoon donte ne moo ngi bëgg Fatima ba léegi nag waaye ñemeetu la jege sax jaw na yooyu ñoom ñëpp ñu ne ci kër gi di dund ki nga xam ne moom mooy papa bi léegi li muy absenté dem jumaa jabari na trop bitig bi itam yitte jim doon yim ci doon doxee wàññeeku na naayib bi daanaka mooy bëgg a jël place ci wàllu jiite bi ak yooyu ndax moo ko gën a farlu te moo ko gën a dal te naayib boobu itam nit ñi bëgg nañ ko lool ndax doxalinam ndax ki nga xam ne mooy Baye Jibi nit ku baax la ku set la waaye li nga xam ne moom mooy bakkanam daf koo jiital ba su meree du ànd ak sagoom te jabar ji itam xaw a mm, yor jikko joo xam ne daal jikko ju sew la ba ñu bari ci nit ñi xamoon nañ loolu wante comportement baay Jibi bu changé boobu jaaxaloon na jabaram ndumbe muy waxtaan ak moom nan ko lu tax léegi ngay bàyyi dem jumaa ja waxtu sàngam waxtu sàngam diwa yi nii jën na sa place jiite bi demeetul noonu te yow yaa war a jiite léegi bu bu ngénte amee ci koñ bi sax moom mooy dem tudd yow dematoo rob dematoo yow daal depuis jëkkëru bàjjan faati bi deeyee ba léegi daal gis naa ne am changement yow kooku yow moom jubawoo leen woon déggoo bu su leen a déggoo xanaa deem gi kay waru laa def problème wala li ngeen doon am ay problème yi ñaar bi ñàkk déggoo moo tax bi mu deewee nga bëggoon xëy na juboo am seen diggante loolu amul xanaa loolu moo la jàpp di wax rek bàjj ji bi mu sonnee ci wax ci daal di ne ko ndumbe gis nga man dama tiit ci sama jëmm ji ndumbe ni ko ah lu waral loolu mu ne ko ndax dama doon fexeel bàjjan faati maman yooyu la borom këram gaañu wóoru ndax li ma doon fexeel bàjjam faati moo këpp ci kaw boroom këramam déet ndax ki ma doon defal loolu mooy sëriñ diw jamono yooyu dem naa seen village fekk ko mu dem seen dëkk te moom daawul dem seen dëkk sax te woowu ma téléphone tàggu ma sama waay la waaye léegi dafa mel ni ku may daw mën nag bëgg daa ko gis pour mu confirmer ma ndax moom lii am moom loxoom daf cee laale war a déet ndax fi mu toll nii sama bopp tëju na lool damay tëdd di gént yu doy waar lekk su ma koy def sax sama xel ne yar ci diw mi nga xam ne moo faatu di jëkkëru bàjjam faati sama appétit day coupé nelaw yu baax mënatuma ko affaire daal dafa ma traumatisé noonu numbe daal di rey ne ko mag mu toll ni yow ngay mel ni xale bu ndaw di traumatisé wu loolu lan moo waral loolu yow xam nga ne laale woo ca taqe woo ci jibi ni da ngay rafet njort yow bàjjan faati da nga bëggoon rek xelam wëlbatiku mu nangu sëy sa doom sa ñaari doom yi seen sëy am léegi loolu lan moo ci joteeg dee su fekkoon te ne dee am kay bàjjan fàtte kon moo waroon a dee ndax ci moom nga jub jublu woon mais jëkkër ji moom laaloo ko jegewoo ko kon loolu sa yoon nekku ci daal di wax a wax a wax ba convaincre bi waaye ji bi loolu nag xaw a dalal xelam mu xaw a giif xel mi xaw a dal ne ah waaye nag sëriñ boobu day dafa am lu ma waxoon daf ne ma faati mi ku ku am bopp la damay ragal am bopp gi mu am bopp nag ak li sama bàyyi def ci moom moo waral liggéey ko jàpp ko dafa jafe. damay ragal ne est-ce que du liggéey boobu moo tourné këpp ci kaw borom këram noonu nag la ki nga xam ne mooy nub bi ne ko ne ko jibi déglul ma wax la nag gis nga dafa am loo xam ne du yëfu kilifa te àdduna dafa doy waar. sa li ngay wax nii nit mën naa romb dégg ko wax ji dal di tasaaroo siiw sa der yàqu sama der yàqu bàyyi wax ji ngay wax da génne ko sa xel li am am na jeex na Fatou mi nga xam ne moom la borom këram gaañu sax ma nga ca jàmmam di lekk di naan léegi yow nangootoo lekk nangootoo naan lan moo xew. noonu la ki nga xam ne mooy bàyyi ji bi daal ne ko wax nga dëgg li nga wax moom lay def sax damay bàyyi noonu rek yàlla baax na daal di jéem a nag dalal xelam jéem a giifal xolam ngir mën a ne ci jàmm ndumbe ne ko léegi nag affaire mariage bi nag bàyyi ji bi ne ko yii loolu moom bàyyil mu sedd ndumbe ne ko bàyyi mu sedd ne ko waawoo mu ne ah léegi kon daal dañuy bàyyi noonu rek mu jeex mën nga xam ne samay ndawtal ak li ma leb ci ay ndaw li ma nangam ak nangam maa ngi bëgg bis bu ma waree xew fii ba làngal ñu man ak may nangam nangam na wax ay waxam ba pare bàyyi ji bi ne ko loolu yow la engagé yow la intéressé mais diggante sëyu ki nga xam ne moom mooy moor ak may ak Fatima dafa jege trop seen mbokk dafa jege damay ragal sax bu ñu sëyee feebar yooyu di am ci diggante ñaari mbokk yu jege sax am am ci ñoom loolu lay ragal moo tax bàyyil rek noonu nag ndumbe moom di insister ne du bàyyi. bàyyi bi ne ko kon baax na loo def rek xamal ne yow la waaye man moom affaire bi amatuma ci envie amatuma envie daal continuer ci li nga xam ne mooy mbirum sama doom bii di moor ak ki nga xam ne moom mooy Fatima moor nag moom xaw a jaaxal ndax ko moom dafa bëggoon Fatima Fatima moom nee na ma carrément bëggul jarul forcé nekkatu fi mu nga kër bàjjanam nañ ko bàyyi mu ne ci ko neex moom ak bàjjanam boobu wante sama doom moor moom dinaa fexe waxtaan ak moom ba xam mu ngi bëgg Fatima ba léegi su dee mu ngi koy bëgg ma wax ak moom mu jéem ko génn ci xelam te dee ma xool keneen su ko defee loolu moom mooy doon li nga xam ne mooy gën noonu la ki nga xam ne mooy ndumbe daal ne ko baax na yow de li nga gis ak li ma gis bokkul man moom ba àddunay tukki damaa gëm ne Fatima jabaru moor la war a doon loolu dama ko xasa wax sama gémmiñ samay xarit ak samay mbokk ñëpp waxtaan naa ci ak ñoom te ñëpp rafetlu woon loolu kon nag duñ ñëw ba fii di ko yàq waaw ah, baax na yàlla baax na noonu la bàyyi jibi daal di woowee moor doomam taaj ko ngir waxtaan ak moom ne ko moor dama bëgg ñu waxtaan waxtaanu doom ak baay waaye waxtaanu góor ak góor dama bëgg nga xam ne man mii sa baay laa te sa yitte sama yitte la te fonk naa loolu ndax sama baay laa la tuddee dama gis ne sa diggante ak Fatima lu waroon a mën a nekk la ndax sa bëgg-bëgg laa topp waaye daj naa ci coono yu tar yu méttee méttee métti ma dina laaj naa ndax yaa ngi bëgg Fatima ba léegi balaa maa waxtaan ak yow moo daal yëngal bopp bi def siiñ bi wan baayam ne ko maa ngi bëgg Fatima ba léegi baayam ne ko génn ci nag moo daal di siggi xool ko mu ne ko waaw génn ci ba set wicc Fatima rek nekk fu ci jigéen jigéen ñi bari nañ xoolal ku la neex ci koñ bi ak ci mbokk yi fu la neex ma dox ci wax ci bañ may la ko waaye Fatima mi bëggu la ay waajuram itam bëgguñu la li ma bëgg nag mooy bëgguma ay coow ci ay problème li ma nekk ci problème nag dafa doy sëkk génnal sa xel ci Fatima ndax à part amoo keneen koo xam ne bëgg nga ko xalaatal rek fa nga daan jànge ndax amoo fa koo bëggoon wala ci koñ bi nii xale yi jigéen ñi gisoo ci kenn commencé cité ay tur loolu ki nga xam ne mooy Mor daal di yëngal bopp bi wax baayam signe bi nga xam ne mooy signe déedéet ne ko déedéet papa man moom bu fekkee bëgg rek laa bëgg rek pour wàllu sëy moom Fatima rek laa bëggoon waaye comme wax nga loolu nag ah baax na dinaa jéem a bàyyi mu sedd rek bàyyi na ko defal loolu bàyyil mu sedd ñu dem nekk ci leneen yàlla jeexul su ko defee yow xamal fi ngay yem bu baax a baax rek ñoom bul dugg ci seen i mbir bul dugg ci seen dara amoon sa fulaak sa fayda incha yàlla bari na sutura noonu nag la ki nga xam ne mooy moo daal di génn dem jour boobu nag jaaxle woon na lool amoon na naqar lool naqar gu taratar fu mu toog de stress rek moom moor mu ndaw moom ndax sëyam ak Fatima nekkoon na lu mu bëggoon ni nga xam ne noonu la ko yaay ji fekkee mu toog jaaxle yaay ji ne ko waa moor lan la lanati la xanaa li nga wax ak sa baay moo tax nga def mel nii moo ne ko waaw yaay dama bàyyi dama ko wóorusu lool am na lu bari mun moo ko wax mais Fatima daal wax dëgg yàlla dafa nekk sama biir xol lool ngir ma am jàmm stable féex faw ñu may ma ko ndumbe ne ko loolu nag nga gis man moom laa gis te moom laa wax ak sa baay te incha allah dina d'accord xam naa dafa am ay problème yu ne ci bopp bi rek yu bokkul ak lii mais problème yi su dalee ba féex dina d'accord te man mii def naa ci sama alal ba noppi te faw say bi dina am du ma ko perte noonu incha allah Fatima ak lu mën a xew dinañ la ko may noonu nag la ki nga xam ne moom mooy moo ne ko waa man yaay lenn jaaxal na ma de Fatima bu doon moom ci kër gi sax sama xel mën a dal mais nekkul ci kër gi ma nga kër bàjjanam boole ci itam ki nga xam ne mooy Ibrahima maa ngi dégg ñu ne day génn ak Fatima dañuy bëggante ñoom ñaar yaay ji ne ko loolu yëpp ci sa yoon nekk. mook Ibrahima lu ñu seq loolu bu ci sa yoon nekk Fatima moom na la wóor ne dina dina la bëgg tëdd na sëy ak yow bañuma ma ci dara lu mu laaj danaa ko def na sa xel dal noonu nag moo daal di kontaan xool yaayam xam ne kon yaay ji moom pare na ngir jàppale ko ci li mu bëgg moo nag noonu la demee gis ki nga xam ne mooy aji mu waxtaan ak moom ne ko aji man day dama am mbégte lool. ci sama yaay daal dafa taxaw temm ngir jàppale ma ci mbirum Fatima sama baay nag moom moom découragé na bëgg na ma dellu ginnaaw ndax mbirum Fatima daal xam naa ne nekkatul yi teem léegi li bëgg mooy nga gën maa jàppale ci Fatima léegi dama bëgg laaj ba xam Fatima moom léegi ak li xewoon moom ban comportement la ci am léegi ba xam changé na afi ci ni meloon ak man noonu la ki nga xam ne mooy aji di xool mor ba mu yàgg ne ko man Fatima jamonoy sarax si lañ mujjee gisante kër bàjjal li ma fay dem bariwul mais nag Fatima su fi ñëwee samedi ak dimanche moom ñooy bokk nekk ñooy waxtaan mais nag Fatima bëggul may wax say wax bëggul sax ay affaire góor ma koy wax moom daal njàng mi moo ko yitteel ak yeneen i mbir yoo xam ne daal suñu mbiru bopp la noonu nag moor ne ko ay waay aji jàppale ma man yow rek laa yaakaar ci nga jàppale ma man loo bëgg mën naa la ko jox ci bitig bi sax boo bëggee ma jël sama xaalis pap di la ci may aji ne ko ah mu ne ko waaw su ko defee yow nga di ma toppal Fatima di waxtaan ak moom ngir mu nangu am ak man jàmm ngir mu juboo ak man su ko defee man dinaa mën a am bunt boo mën a jaaraat ngir ñu mën a juboo suñu wee nag ragal naa ne su may waxtaan ak moom di ko jox ay teraanga mën na dem ba bëgg ma noonu ki nga xam ne mooy aji ne ko mbaa su ngeen juboowee la nga defoon doo ko defaat rek doo ko fekk muy nelaw nga di ko jéem a làmbatoo ko def yëf noonu la ki nga xam ne moom mooy moor ne ko déedéet loolu kay xalaatuma ko loolu kay dama ko réccu dama ko réccu lool ajee ngi xool ki nga xam ne mooy moor di ko xool di ko xool di ko xool ba mu yàgg ba moor wax ba pare moor ne ko waaye aji lan moo xew noonu ki nga xam ne mooy aji ne ko ah ci lan man damaa gis léegi da ngaa trop man da nga xool xool yoo xam ne daf maa jaaxal boobu nag aji mbëggeel gu tar mën ne ci xolam ñeel ki nga xam ne mooy moor waaw ndax aji dafa naan garab googu nga xam ne mooy nopp boobu ñu defoon ngir Fatima moom aji moo ko naan aji mi nga xam ne mooy doomu laal la bëgg moor lool nag waaye amul fitu wax ak Mor ci loolu ndax day ragal su ko waxee ak moor Mor mën na koo bàyyi wala leneen daal mën naa xew. waaye bu tëddee moom rek lay xalaat moom la bëgg loolu nag la ki nga xam ne mooy aji daal di xool moor ba mu yàgg ne ko du dara moor léegi lan nga xalaat lu tax nga ñaaw njort man lu ma lay xoolee commencé di wax moor dal di muuñ ne ko ah kon baax na yow danga bari bëri affaire rek ñoom ñaar ñu daal di tooñante ndeysaan dañoo xaw a yebante ñoom ñaar ki nga xam ne mooy aji yi daal di sëgg ba mu yàgg rek mu takk fitam ne ko man moom li nga bëgg yëpp sax mën naa koo def duma la bañal loolu noonu moo daal di kontaan ne ko ay waay defal loolu par exemple jàppale ma mu ne ko mën naa la jàppale man man Fatima ma rek lay déglu loo ma ko wax moom lay def boobu aji moo ngi jéem a teg benn plan moom tamit ci biir plan bi mu ne ko Fatima lépp loo xam ne man wax naa ko rek ànd na ci ak man même bu dul lu jaaru sax man d'accord na ma ko nag gis nga Fatima su taxutoon ak man weer na la li nga defoon noonu dafa garaaw mais loolu tey kenn yëgu ko. yaakaar naa kenn yëgu ko te loolu man maa tax kon yow dèjà da nga maa war a sant waaye yow moom li ma gis mooy man intéressé wu ma la yow Fatima rek moo la intéressé noonu moo daal di koy xoolaat ne ko waa luy luy man intéressé wu ma la ah yow intéressé ma moo tax ma ñëw di waxtaan ak yow di man sax ma un problème yow laay waxtaanal yow sama sœur nga mu ne ko Fatima tamit sa sœur la di mu ne ko waa léegi loo bëgg wax foofu comme da nga bëgg ma bëgg la noonu xale bu jigéen bi aji ne ko déedéet waxuma loolu de. waxuma affaire bëggeel de commencé di camoufler noonu Mor ne ko waa ah, baax na man daal incha allah loo wax rek man pare naa pour ànd ci ngir sama diggante ak Fatima mën a nekk nga jàppale ma ci noonu aji ne ko ah lu ma wax rek lu ma wax rek mu ne ko waaw ah, loo bëgg rek pare naa ci aji ne ko ak lu doon moo ne ko lu mën a doon kay aji ko waa léegi damaa bëgg benn affaire sekk la sama diggante ak yow li damaa bëgg man ak yow ñuy génn. maanaam ngay nekk ak man du dund ak man ci suuf loo xam ne kenn du ko yëg su ko defee ma di la jàppale ci Fatima noonu moor dal di ree affaire nag def ko ay ree mu ne ko yow aji kañ nga commencé di ruube di ma dofloo nii yow nu may génnee ak yow yow ngay sama rakk nan lay génne ak yow mu ne ko Fatima yi sa rakk la di te Fatima sax nga gën a bokkal ndax seen bàyyi bokk ndey ak bàyyi man ak man ak yow nag suñu bàyyi bàyyi doo nga leen bokk noonu nag moor affaire ne ko ah aji yow kon caaxaanoo nii da bëgg man ak yow daal ñu nekk loolu nga bëgg noonu ki nga xam ne mooy aji ne ko waaw te sax li ma bëgg yëpp sax waxuma la ko de sama sago sax li nga doon bëgg def ak Fatima nga def ko ak man noonu nag moo ne ko yii loolu moom xalaatuma ko ñemewuma ko loolu moom dama ko siix loolu moom yow moom xalaatuma def ak yow loolu commencé di wax rek aji mer kon baax na wan ngaa jug nga dem man dinaa wax Fatima sax secret boobu ñu dencoon. dinaa ko wax mu Fatima ci boppam waxtaan ceeg papaam papaam dana ci wax ak sa pap noonu noonu Mor daal di tiit ne ko déet aji déet bu wax bu wax loolu léegi loo bëgg noonu aji nag di ko provoqué ay provocation yu doy waar di ko provoqué di ko chantage ci mbir yooyu dajeeg Mor nekk waajo saay-saay moom itam ku kàccoore li wala fi naan ku bëgg fu mu fanaan ak ku koy wéttali tëjal bunt du leen boole ca boobu ci la moor daal di accepté lépp lu ko aji wax jamono yi nga xamee ne seen way jur yi génn nañ ñoom ñu wéet ci néeg fi nga xam ne mooy néeg lal la maanaam néeg bi nga xam ne mooy néeg lal la il ñu dem seen néeg fa la ñu doon defee naka sudul noonu première fois maanaam di njaalu ci yàlla noonu la Mor ak aji daldi séqee mbir moomu mu nekkoon lu doy waar lool lii daal mooy yéene néeg la bonoma ci ay fanaan yéene ji la la amoon ci Fatima ba digal moor ngir mu sàkku Fatima tey nag moom doomu Lalla ji moom la moor daal di siqal ci loo xam ne moom yëgu ci dara ndeysaan mu nekkoon lu yéeme lool fii la yemale épisode 7 bi ñu jox leen di daje épisode 8 bi ci lu yàggatul dara incha allah jërë ngeen jëf. Abonnez-vous sur Scène Production pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam.